syndicaliste yi di waa Petit Train de la banlieue ñoo fësal tey seeni mer ci dogal ministre bi di Ndéné Sall moom mi yor wàllu dem beeg dikk bi ci raay bi moo tere ñii di cheminot yi ñu daw ci màggal bi ñu dëgmal la. boobu la mbir nag nekk lu metti syndicaliste yi. kon ñun de jàpp nañ ñun cheminot yi. Ndéné Sall daa bëgg a comploter contre les cheminots mooy lan. mënuñoo nangu autorité PTB yi. autorité DBF yi def nañ liggéey bu mucc ayib ba ñu fas yéene woon départ train yi allah le mercredi 24 bii. ba ko défé nak bëgg def nak départu saxaar yi note génné ni mu ni tere nañu train bi mu daal di dem Touba loolu amul benn autorité pétrolière bu ko yëg avant wala bu demee bu ko yëg avant. yi yile syndicaliste japp ni argument yu ministre bi teg ngir jël bi bile décision dëppoowul ak li di réalité yi. ñun aussi expert yi nga xam ñoo yar voie bi xamal nañu ni diggante Dakar ba Touba manam Diourbel ba Touba ray bi dara newu ca Ndéné Sall bu wëree radio yi di wax néna na Touba worul nee na aussi Dakar worul kon lolou muy bañ train bi nga xamné muy Touba bu ñu tollee ci dem Touba ñent saxar la dawal ñent saxar assurer seen sécurité ñu génn Dakar mo gën a yomb xanaa fukki saxar ak juroom ben kon donc lolou mo wax tegu fenn ngir jamarlo ak bile décision syndicaliste yi di wa petit train de la banlieue jëmmal nañu it seen plan d'action waaye li ci am solo moy ñun fas nañu buñu paré fi def ay tournée dem à l'intérieur du pays dem Thiès

Respecter les engagements yu mu de plan d'exploitation travaillé travaux TER